moo tax seen masse musculaire bi bari noonu nga gis ko ci sonn naan xool dafa nekk loo xam ne muscle la le cœur c'est un muscle mm-hmm. da nga koy préparer mais si le cœur est enveloppé que de la graisse fooy noyyee donc nooy et danger bi muy mbër ak keneen ak keneen ñun ñëpp pour ñun bu ñu noosee mm-hmm. da teg excusez-moi dibi bi teg ci benn boisson je ne fais pas de publicité ah, teg dibi bi rek teg ko ci mu compact doon nooy <laughs> sa veine yi dara du dox aorte bi taxaw gras bi na fa tàkk nga dem tëddi soo eh, amulee chance tuuti morgue ba nga yeewoo soo amulee chance tuuti morgue ba nga yeewoo yaa ngi koy wax léegi lan moo tax suñu mbokk te coach li ci gën a graaw mooy guddi lañ koy lekk ñépp nag góor comme jigéen tëdd nekk ci am na suñu bari ñoo xam ne fa lañ jaare yeewuñu yaa ngi koy wax sunu mbokk yi xam naa tur bi moom ay xaw a déranger ni nga koy waxee forox caay neex bool day ko ci teg <laughs> bu wax forox caay kese da ngay wax forox caay neex bool boo waxul neex bool bi day yéeme trop mais yàpp boobu yàpp gënu koo riche. et tu le manges le matin. yàpp boo bëggee mu amal la njariñ surtout si nit da nga koy lekk le matin Aïcha mi ngi ree bay bëgg a dee. am na fu mu wala daa dafay waaw dafa am solo. wala nga dem ba 17 heures pour la digestion mën a gaaw. Mhm. parce que boo ko jëlu au delà 3 heures de temps après. su tasul day dem nekki gras day ut fu muy laxatu ji. Mhm. moo tax boo xoolee yi jël masse ñi si ëpp. c'est entre fii ba ci taille bi. Mhm. parce que énergie boobu boo ko ak alimentation saine bi nga jël bu fekkee ne transformé woo ko day dem nekk gras day ut fu muy laaxatu ci yaramu nit